bienvenue sur votre émission li ci dëkk bi. suñu moom nag euh, mooy le ministre conseiller la euh, du président de la République du Sénégal na tamit euh, ministre si wàllum tourisme ak li nga xamante moo nekk transport monsieur Abdou Mboup nag yemul foofu nekk nag nga xamante tamit mu ngi bokk nekk fondateur du mouvement CAR cercle des actions pour la de la République moom tamit nekk nag nga xamante ni bokk na si programme boo xamante ni. coopération des habitats la euh, wàllum construction nekk koo xamante ni ko ñuy ràññee la tamit ci politique Sénégal euh, tey nag moom la suñu TV recevoir ñu gën koy xam si émission bi li ci dëkk bi mercredi 15 janvier 2019 dama koy euh, jox rek sama micro mu nuyu askan bi ñu xam ko bu baax ñu xuus li nga xamante moo nekk suñu question ak réponse monsieur le ministre salaamaaleykum. alhamdulilah maaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen nuyu li ci dëkk bi bu baax a baax émission bi bu Euh, di nuyu waa Sénégal di sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad di nuyu président Macky sal mi nga xamante ne moom la yàlla dénk réew mi di nuy kilifa diine yeeg aada yi di nuyu samay waajur yi nga xamante ne ak samay mbokk également maa ngi nuyu bu baax a baax wépp kàngam ci mouvement cercle des actions pour la république naataange euh, chauffeurs yi euh, baykat yi femmes de développement yi mareyeurs yi maa ngi nuyu bu baax a baax di. xaw a ci tuuti ci présentation bi euh, ngi wax ne ministre tourisme ministre conseil la waa conseil technique président la ci wàllu tourisme di ko conseiller ci wàllu tourisme di ko conseiller ci yeneen kii yëpp ci weneen fànn yëpp mais également ci wàllu métier ingénieur la en développement territorial ma leen gërëm bu baax a baax euh, li ci réew mi li ci réew mi nag <laughs> yàlla kese la euh, yàlla la du leneen parce que lépp suñ borom la euh, donc lu ci réew mi taxaw naa pour déglu seen question répondre ñu commencé foofu monsieur monsieur le ministre ma bëggoon a xam monsieur Abdou Mboup tout tànk ba tey parcours am waaw parcours am comme parcours tout sénégalais la mais quand même teg ko ci yar bu yar bu am solo maa ngi juddoo euh, Koungheul dëkk bu tedd boobu fa laa juddoo def ko fa ba école def fa école primaire waaye ndox dëgg dama fa teel a génn maa ngi defee cm de école ba ñuy waxee école Mansour Ba ca Kaolack euh, ñëw Dakar ci quatrième secondaire euh, amee fi bac scientifique S euh, yooyu bac D lañ koy wax muy s tey dem université def science économie et gestion ci science économie gestion boobu wax dëgg yàlla defaat aussi beneen formation en marketing action commerciale génn nekkoon taaw sama waajur nar a waajur xam nga rek situation yi nu muy demee ma dem uti liggéey. nekk volontaire de l' éducation nationale ñu affecté ma fa ñuy wax Iden Gossas ca école ba ñu wax Njaago ma def fa trois ans am fa wax dëgg yàlla meilleur taux d'admis maa ngi fàttaliku 42 pour cent d'admis à euh, à l'entrée en sixième euh, génn fa dem administration territoriale à la préfecture de Kébémer comme agent administratif euh, jógee fa def samay concours examen ñu reclassé ma comme technicien supérieur à marketing yóbbu ma agence national promotion touristique ministère du tourisme foofu nag wax dëgg yàlla def nañ fa lu rëy rëy rëy lu bare bare ci réewu Sénégal ci Sénégal continuer suñu jàng ba génnee ingénierie en développement territorial fële ci université Bambey Alioune Diop de Bambey ba yàlla def tey ci tourisme nag dem nañ ci réew yu bari ci àdduna bi jaay Sénégal ci xarxanam ci wàllum tourisme attirer Séné attirer touristes yi ñu ñëw Sénégal man maa gere woon salon Tika j'étais le coordonnateur du salon Tika nekk mu am solo ñu xam ràññee ma ci lool ci Sénégal wax dëgg yàlla ak ci bitim réew euh, Moscou Russie Maroc euh, Italie macha allah Espagne des États-Unis d'Amérique ba dugg présidence euh, ci wóolute son excellence de président Macky Sall ci kaw kuréel gi ma taxawal nga xamante ne di def politique développement maanaam li ma jàng ci ingénierie développement territorial naka lañ koy boole ak politique ba askan bi mën a jëriñu ci nguuru président Macky Sall. tirer profit du plan Sénégal émergent noonu la ko tënkee génne kaar naataange waaye tibbee ko ci yu am solo ci diggante axe 1 à axe 2 du plan Sénégal émergent la transformation structurelle de l'économie mais également le, le renforcement du capital humain naka lañu defee ba ñu am ay nit ñoo xamante yu am solo yu si seen dund dana soppeeku jaaree ko ci plan Sénégal émergent ci kàttanu yàlla ci seen initiative privée développer le partenariat public privé moo ñu indil vraiment ci ci nuñ taxawalee kaar na naataange donc suñu parcours bu QF mu ngi noonu taalibe lañ boo xamante ne jaar nañ ci daara ji wax dëgg yàlla jógee ci daara ji doog a jàngi doog a jàngi ci école bi waaye wax dëgg yàlla loolu daal ci modeste présentation mooy suñu parcours euh, fu ñu toll nii. d' accord euh, présentation bi nekk na lu leer te nekk na lu riche macha allah parcours am euh, nu ñu leen ko waxee rek suñu TV nii rek laay demee saa yu nekk rek ñu leen di wax rek mbokk yi euh, ngeen wéle rek di abonné di commenté di aimé li nga xamante ni moo nekk émission li ci dëkk bi. ministre Abdou Mboup nga nekkoon jàngalekat tey nga dugg ci géewu politique pourquoi. waaw jàngalekat bi nag jaar jaar la woon parce que volontaire taxul nga nekk jàngalekat xam naa bu may wax ja métier bi dëgg ingénieur en développement territorial. Euh, volontaire bëggoon service sama réew moo taxoon ma dugg parce que jàngalekat c'est tellement sérieux que l'institut l'instituteur a besoin d'une formation très poussée donc dama doon dimbale instituteurs yi loolu laay mën jàppee sama bopp euh, géopolitique bi nag nekk na loo xamante ne nee nañ politique euh, la politique elle est importante naka ngay bokkee ci réew mi jàppale nit ñi loolu sacrifice degré de sacrifice la ñu ci bëri xamuñu Euh, lan mooy sens politique parce que boo ne tey damay ñëw bokk ci lu ñuy wax l'art de gérer la cité la gestion du cité euh, gérer kër sax dafay laaj tout le temps ndékk añ reer doo la wàcc mukk waxuma la koñ bi waxuma la dëkk bi donc nekk na lu am solo waaye nag mu yomb lool ci parce que dañoo nekk ci keppaaru kenn ku mag ingénieur bu mag muy le président Macky Sall ñëw taxaw ma suñ gis Sénégal koo xamante ne taxawal na plan boo xam dañ daan gis plan septennal plan ket quinquennal maanaam plan aussi juróomi at wala ci juróom-ñaari at triennal sax dañ koy gis ñett at mais moom dafa ñëw mu ne plan pour fii ak 2035 ma émerger Sénégal émergence ak développement dafa ute émergence dafay lijjanti c'est les détails du développement le président Macky mu ngi mel ni nga immeuble bi rek ngay tabax président Macky Sall ca brique ya la dem ca ciment ya ca fer ya pour taxawal bâtiment bi noonu la taxawee Sénégal faram-fàccee ko ci secteur par secteur ci njàng mi su fekk jël ko ci infrastructure gis nañ terre bi bi nga xamante ne le train express régional ñun ñu daan tukki ñun ñu daan am chance de tukki bu ñu daan dem Paris wala ñu dem New York tugg ci seen métro yi dañ naan kañ lay Sénégal di am lii ci ci ci cofeel bu ñu am ci suñu réew toog ci autoroute à yi kañ lay Sénégal di am lii malgré franchement loolu nekk na lu yomb ci ñun ba tax ñu taxawale ko ci anam bu leer euh, bu set. tënk ko ak suñu jaamu yàlla parce que nag suñ borom daf ne bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko jaamu ma euh, moom suñ borom donc jaamu yàlla moo ñu fi indi président Macky Sall nag nekk ci ronam di jaamu yàlla dafa yomb moo tax ñun ci Kaar Naataange on a compris très tôt depuis 2013 2014 ñu dem ci liggéeykat yi ñëw leen ne la ñëw leen ñu ànd euh, dem uti ci plan Sénégal émergent dem ci femme de développement yi fekk leen ci mbootaay yi. ci koñ yi ca Cambérène ca Yëmbal un peu partout Géejuwaay caro sur mer fekk leen fa ca gox goxaan ca Thiès ca Richard Toll Dagana fekk leen fa ca Koungheul ne leen ñëw leen ñu ànd ñu jàppoo digguwuñu leen xaalis mais ñëw bëgg ñu formaliser ànd ak yéen avec en tant que expert jàppale leen ba ngeen mën a jëriñu ci plan Sénégal émergent noonu lañ tëggee Karnatangé tour bi d'abord étymologiquement maanaam tëggi ne baat yi mu nekk loo xamante ne baykat ba ca waalo bu ko déggee mën ko jël approprier ko euh, car macha allah am naa naataange mais signification en français c'est le cercle des actions pour la république boo nga xamante ne euh, son objectif c'est la massification de l'alliance pour la république mais jaaree ko ci développement son objectif c'est de faire de sorte que les populations puissent tirer profit du plan Sénégal émergent mën a fësal président Macky Sall ci liggéeyam mu gën ko fësal président Macky boolewul dara ak wax jëf ju teey jëf ju sell jëf ju am njëriñ ci askan bi mosoo gis président ñun lañu daan gis mooy en Europe mu nekk ñu ne euh, indemnité de chômage loolu lañu daan gis en Europe mais pour nga gis président en Afrique bu jël bourse familiale ñëw ne ay milliards jox ko askan bi yow famille bi nekk Ecolo ci réew mi nga bokk yow famille bu nekk ca Ribo Escale ci réew mi nga bokk naka laay jëlee ñaar fukk junne ci gafakaab réew mi di la ko jox par at pour que nga nga nga amélioré wu euh, ci ci wàllu lekk bi ci wàllum xale yi ca njàng seen i kayit juddu donc loolu nekk na lu am solo loo xamante ni président Macky Sall def na ko ci biir réew. waaw loolu dinañ si ñëw monsieur le ministre li nga xamante ni mu nekk bilan bu nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy def ci réew mi kenn naataale mi ko euh, sa àndoog Macky Sall depuis kañ la. mag sal su ànd depuis 2010. 2011 maa ngi bokkoon ci parti bu ñuy wax LD MPT temps yooyu LD MPT la. nga ralli. Euh, du ralli parce que ralli da ngay xaar ba mu neex nga ñëw euh, dama bokkoon ci jeunes yi nga xamante ne wax dëgg yàlla maa ngi nuyu euh, le ministre Yoro Dey moo ma yar nampatal ma ci politique ba ma ñëwee en 2009 j'étais le le directeur de campagne de Benno Siggil Sénégal à la SICAP Liberté juste après. ba Benno Siggil Sénégal sentiré tiraillement yi laa xam ne l'avenir et les perspectives ci président Macky Sall la jëm te vu mon âge ak samay at su ma continuer toog ci euh, kii situation boobu du ma arrangé ma bind sama lettre yóbbu LD démissionné ci parti bi toog ab diir dem ca mbay Ndiaye ne ko dama bëgg xool naa géew politique bi dama bëgg dugg APR te sa porte laa bëgg jaar. est-ce que boo gisoon ne APR muy commencé am lu baax nga ñëw daw dugg fa. Euh, non dama gisoon li baax li ma gisoon yëpp mooy décision euh, président Macky Sall xelam euh, goreem ak ni mu waxee woon lancé woon ne bàyyi naa lépp ci PDS des na yàlla ni ma gisoon également li mu jot liggéey ma xam ne waa ingénieur bi kat ku ko topp ci ginnaawam. di nga mën a di nga mën sori ci wàllu politique parce que boobu rien n'était clair c' du temps nous étions à la Sicap Liberté avec docteur Anta Sat Diéko avec ñoom Aliou ñoo reyante ci ci 2012 parce que boobu président euh, dara leeru toon ne moom dana jël réew mi alors ñu ànd ci ba mu jël réew mi nag ba mu ñëwee ba mu ñëwee euh, euh, APR moo xool ne il fallait que ma créer benn benn benn mbir suivant mon expérience politique acquises à la LD euh, ma créer le cercle des actions pour la République car naataange xëcc ci ay kangam yu bëri ñëw ànd ceeg man nga mu liggéeykat kàngam borom xam-xam ay ay ay ay ay ay cadre yoo xamante ne dañoo immigré woon ñëw toog ànd ak man ñu liggéey femme de développement yi liggéey ko dans un cadre de partenariat public privé parce que réew kat euh, public bi ok état moom yor na ay programme am mais lu koy développé dëkk privé bi la il faut que le privé le secteur privé soit très fort mais ce dans dans un cadre comme réglementé euh, par l'État n'est-ce pas euh, réglementation boobu ñun dañu comprendre partenariat public privé bi président wax ci plan Sénégal émergent ñu dem waxtaan ak banques yi les banques microfinance def ay package n'est-ce pas je me rappelle euh, ñu proposer sigil jigéen euh, crédit mutuel du Sénégal mu accepté ko ñu banque bi dafay nangu jigéen soxna si du indi garantie du indi caution lay taay président ma Sall dimbali ñu FONGIP ñu am garantie boo xamante ne mayoon nañu ñu def 4 milliards 800 millions ci financement wu jigéen ñi ak CMS banque bi du dem kër kenn loolu def nañ ko également ci ci wàllum programme un chauffeur un véhicule euh, chauffeur yi nga xamante ne sonn nañ lool dañ leen di jël ñuy dawal ba man fonctionnaire ma jënd oto jox ko mu dawal ko fayal ma ko wala chauffeur assurance ba muy dagg du ko mën du ko mën a du ko mën a fay du da koy fay naam mais du ko jël en charge assurance bi te président taxawal couverture maladie universelle ñu waxoon président mu may ñu benn mutuelle de santé pour les chauffeurs def nañ ko avec 2500 chauffeurs yoo xamante ne amoon na 80 pour cent de prise en charge yoo xam pharmacie comme hôpital loolu nekk na lu jéegu yu am solo yu ñu ràññee ci réew mi ba nga xamante da nga dégg financement Mboup yi financement Abdou Mboup Euh, Abdou Mboub moo tax dañ koy def ci teraanga ci jàmm ci mbokkoo mbokkoo bi mooy lan duñ xool parti sàngam lu bokk parti sàngam la bokk dañuy dajale jigéen ca mbootaay ba nañ mel rek ca mbootaay ba ca groupement ba ca association des femmes Euh, formaliser leen quelquefois utal leen jox leen. mais monsieur le ministre man dégg naa euh, un chauffeur un véhicule dafa am problème boo xam ne mu ngi ci biir est-ce que nekkul discours bu nga xamante ni monsieur le président son excellence Macky Sall mënoon ko véhiculer au niveau du statut est-ce que nekkul tey moo freiné li nga xamante ni nekk seen activité au niveau du un chauffeur un véhicule. waaw un chauffeur un véhicule euh, problème bi problème mu garantie financière ou fongible am na ci mais xam nga borom xam bu toog du toog rek ne problème am na duma dem doo ko def moo tax ñu am un partenaire espagnol moo xamante ne daf ñëw proposer jox ñu ay véhicules de Skoda 5008 ak Renault Scenic tey nii am na véhicule yoo xamante ne ñëw na au port autonome à Dakar ba mettre nañ ko à la disposition des populations des chauffeurs eux-mêmes au-delà de ça aussi euh, programme bi un programme un chauffeur un véhicule Euh, ñu am na benn option de diversification bu ñu def ak les taxes seen Iran bi nga xamante ne ñoom tey euh, am nañ ay seen licence ba licence yi ñu ngi daw AIBD donc benn xam nga projet day bëri ay axe de diversification benn axe bu amee jafe-jafe c'est pas que programme bi moo am jafe-jafe am nañ jafe-jafe ci Toyota Yaris yi nga xamante ne génnoon na ba nga euh, zéro kilomètre mu waroon am garantie financière wu FONGIP yooyu am nañ ci jafe-jafe parce que garantie financière bi duggagul ñu ngi koy xaar pour que taxes yooyu génn mais am na yeneen taxes yu fi nekk yoo xamante ne ay 2013 la euh, ñoom ñëw na chauffeur si nangu nañ ko ba nga xamante ne mettre nañ ko à leur disposition affecté leen ko donc mu waxuma ne programme un chauffeur un véhicule dafa am problème dans son entier programme boo gis nag mën na yéex a démarrer ci benn pàcc mais demarage bi c'est effectif. que chauffeur si ñu ngi siy gis seen bopp. waa chauffeur si euh, ñu ngi ci gis seen bopp gis seen bopp mooy lan yow da nga am problème mu garantie pour dem ca banque ba jël jënd jël sa jënd jël leb jënd oto léegi wéeruwaay mooy cadre bi ñu teg boo ñëwee dugg rek joxe sa apport day mel ni banque bee la lebal nga daw ñaari at fay ko sa oto donc ñun dañuy xool parce que suñu mébét mooy lan mu gën a mu woyof ci chauffeur bi parce que boo ne ko indil cinq millions indi 3 millions dafay métti ci moom diis lool naka la ñuy defee ba mu woyof ci moom ci am-am ci ci am am ba nga xamante ne dina mën a am oto bi daw fay ko ci ñaari at waaye nag cadre le cadre est est et protégé mooy lan euh, am na un cabinet d' avocat boo xamante ne boo jëlee oto bi da ngay dem signer hmm, da ngay signer ce contrat là contrat boobu moo lay may chaque semaine nga verser à la banque n'est-ce pas. sa sa apport de versement de huit mille francs par par par par jour absolument monsieur le ministre ma gis ne nga nekk ministre conseil tey ñu euh, ñu xam bu baax ne Sénégal les ministres conseillers dañu am problème budget tey ñu gis yaa ngi def ay activités def ay programmes est que loolu du am loo xamante ni dana nekk jafe-jafe ak yow. waaw jafe-jafe bi foo ko natt weesu na ko waaye ñun xam nga euh, li may wax rek euh, jeune boo ko tàmbalee ci xale. xale du xaar liggéey moo koy uti moo koy créer moyen dañ koy créer moyen dañ koy créer Karnatangé on a su créer vraiment un cadre qui permet vraiment l'écoulement par exemple des cartes de membres nos cartes de membres au sein du mouvement Karnatangé ñaar téeméer la ñaar téeméer fu mu toll nii ñu ngi ci ay cent six mille cartes de membres yoo xamante ne dugg na ci biir réew mi mais nag du nekkul euh, mille francs yëpp la ñuy jël Euh, ni ñu ko defee système bi mooy ki jaay carte bi day jël 500 francs yor ko ci kuréelam cent francs yi ñëw ci si ñun cent francs yooyu ñuy ñuy ñuy ñuy moom la ñu defee en gestion transparente ba nga xam ne danañu may ñuy fonctionner ci ni ñuy fonctionner du ñu euh, mouvement boo xamante ne dañuy diggee maanaam euh, da ngay ñëw par exemple ñu ne la ah yow sa gox de am nay problème mu xale yoo xamante ne dem nañ ba BFM nuñ continuer jàng. dem nañ ba bac mënuñ continuer jàng signé nañ ak convention ak école de formation professionnelle UPAM yoo xam ne dañ ko mën a jox ay cinq 500 étudiants wala 300 étudiants signé nañ ko ak euh, Confucius ca biir université signé nañ ko ak COSEFOR naka la ñuy defee ba xale yooyu mën a ñëw fay inscription te duñ fay mensualité bourse yooyu def nañ ci 6 mille cinquante bourses ci dernière évaluation bu ñu def. daaw diggante daaw ak ren lu ñu dugal ci ci ci ay jeunes ci école yi ñu jàng dañuy toog ñëw Koungheul parce que ba ma dëkk ñu jël téeméeri bourse daaw jox ko xale yi ñuy def infirmier euh, sage-femme def euh, dañu fay inscription duñu fay mensualité ñu def loolu ca Fimela def ko Thiès def ko biir Dakar fiir Dakar def ko vraiment euh, Diouroup def ko biir Fatick ba nga xamante ne jeunes yi Kaffrine Kaolack Bambey euh, nii fu ne la ñuy ñëwee te ñun duñu xool nag ndax da ngaa bëgg dugg forcément ci mouvement bi mën nga ñëw jël ci bourse bi dem di suivre mouvement bi avec beaucoup d'affection mais quand même doo nekk membre du mouvement. suivre bu nga koy suivre noonu ñu gis ne comme amul da ngay am problème budget tey ndax du freiné nañ ànd bu nga ànd ak ay nit parce que Sénégal gis nañ politique yi Sénégal nu mu demee léegi jigéen nit muy jigéen ak góor fu mu dugg te am waxaay dafa arrière ndax seen manque de budget boobu du pour nga mën a liggéeyal bu baax a baax Euh, waa xam nga xam nga mbir mi ci dëggu la lal ñaar moo am politique de développement dafa neex dafa neex a liggéeyee parce que nit ki bu ñëwee man dama lay wax lu leer dama lay jàngal ni ngay nappee pour que boo ma gisul ëllëg mën a am jën yoruma xaalis bu ma la jox nii nii am demal non dama lay wax ne ñëwal ma boole la defal la dans un cadre de nga dem léegi am financement wu quatre cent nga dem liggéey na nga delloo. waaw ñëwal sa doom kii na ma may la bourse may la téeméeri bourse nga dem kii ko programme de formation avec nos partenaires ñëw fexe la nga am formation nu ñuy defee saponification nu ñuy defee saabu nu ñuy defee eau de javel nu ñuy defee omo defal formation transformation donc yow da ngay dem ba da ngay xam ne kat kii parce que mën na bañ mën na compréhension mën na am problème ci njalbeen bi mais ndaw si bu demee wala sëriñ bi bu demee ba jot ci outil bi nga ko dox parce que ñun euh, politique gu long terme la ñuy def maanaam commencé ko deux mille ña ñu gunge woon ca deux mille quinze tey bu ñu amee rencontre bu ñu wootee mais da c'est extraordinaire ña jotoon quatre millions quatre milliards huit cent millions yi nu ñuy ñëwee kenn xamul nu mu toll moo tax ñun suñ portable duñ ko tëj suñ buntu duñ ko tëj dañuy ibbi nekkul ne euh, dañuy distribuer xaalis mais c'est les opportunités que nous mettons à la disposition de des de la population donc loolu nit ñi comprendre nañu ko xam nañu ko euh, léeg-léeg euh, avec notre statut le président Macky Sall jàppale ñu ci. yaa ngi dégg wax Doudou Ka mu jox ñu ay lettre de garantie yoo xamante ne dañ koy mettre à la disposition des population donc nekk na lu am solo loo xamante ne ñu ngi koy def ci réew mi ci taxawaay ci yëg-yëg mais ci wax dëgg teg ko nampé dalee ko jëlee ko ci. directive ak orientation son excellence le président Macky Sall. d' merci kon nag ñu leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission li ci dëkk bi tey ñu daal euh, ministre ab du Mboup euh, moom nag nekk na doomi Koungheul foofu rek laa ñëw ak moom. dafa am lu ñu dal loo xamante ne teguñ ko suñu bopp muy lan école Koungheul CM2 la yemoon forcément foog nga génn dem Kaffrine wala nga dem Kaolack dem dakaar li dal sama li ma dal moo dal ñëpp ñëw dakaar jàng effectivement. boo jàngee am liggéey boo xam ne daf lay téye Dakar ça ne pas dire que euh, kii Koungheul am nañ fa taxaw wax nañ suñ kër papa euh, macha allah également euh, du ñu koo xamante ne Koungheul lañ cosaanoo fa lañ am politique nag wax dëgg yàlla maa ngi ko mas a defee Dakar maa ngi ko mas a defee Dakar mais boo demee ba am statut bi foog nga dellu boo bayee boo bayee ci àll bi ba bay bi ñor ba gerte gi ñor ah di ko yóbbu kër ga n'est-ce dina am yooyu yóbbu kër ga dina am yoo yóbbu feneen donc dafa jot ma dem sama dëkk sinon trahison lay doon euh, demee moo fa nag togguma rek dem ci politique dama ko demee ci développement euh, je me rappelle bien nous avons formé cent cinquante femmes loolu waa Koungheul sax ñoo ma koy wax. ci boobu euh, du seetu ñu ñu gëm ñu ñun dañu seet pour que parce que gëm gëm yàlla. gëm-gëm bi da ngay wane loo xamante ni da ngay wane loo xamante dana tax ñu ñu bëgg la wala jox la seen seen seen commune. wane nañ ko fa parce que ràññee nañ ñu xam nañ ñu ci lu baax ci yar bu ñu yar parce que xale doom kat nit bu ñëwee dañuy njëkk a xool ca racine ba ci ay wajuram d'abord suñu waju ràññeeku nañ lool ci jëf ju baax ca Koungheul te Koungheul anam bi ma fa taxawee du anamu concurrence du anamu xeex waa Koungheul mën ngeen laaj ñoom ñëpp wax jàmm laa fay wax naka lañ defee mais aussi. def des propositions ak ay actes posé ko fa yoo xam dañ naan ma le plus souvent mosu fi am Koungheul dugal nañ fa pratiquement cent bourses l'année dernière ay xale yoo xamante ne ay infirmiers yii ñoo leen di jël en charge fayal ko suñ poste ñii dañ leen di euh, bàyyi ñoom ñu fay inscription duñ fay mensualité actuellement ñu ngi ci pratiquement cent quatre-vingts bourses yu ñu fa dugal jéggi na ko sax Koungheul fu mu toll nii ba dugg création de Kaffrine actuellement Kaffrine rek région Kaffrine dugal nañ fa cent bourses yoo xamante ne ñu ngi inscrire ci wàllum programme un chauffeur un véhicule bi jàppale nañ chauffeur ya ca ca koy bañ am ci taxi yi jë ci wàllum faj bi jàppale nañ fa defoon nañ fa euh, programme de mille personnes yoo xam ne dañ leen jël en charge ci wàllu mutuelle de santé def nañ euh, téeméer ak juróom-benn fukk phase de bi mu ngi suivre euh, ci ci action yi te ba léegi taxawuñ sonal waa Koungheul ci benn démarche ñëw former jigéen ñi tax permettre leen ñu mën a am xam-xam ci ni ñuy defee Courchevel am métier am métier donc yooyu yëpp nekk na ay action yoo xamante ne def nañ ko ci Koungheul te Koungheul nag xam nga ñun suñu njàng mu ngi màcc ci développement marketing territorial ci développement territorial lañ jàng tey bu ñu joxoon commune yi Koungheul duñ fa tagg di toog ci benn consistance wala cabinet ne ne xalaatal nañ ñu ngi defee Koungheul ñun ñii ñoo koy xalaat parce que suñu xam-xam ci la màcc. tey fois postuler ta candidature pour être maire là-bas. Euh, ça allah par la grace de Dieu euh, la première fois en 2019 lu tax mu war a nekk en 2019 say mbokk doo ñëw mukk taxaw ci man daal damay bëgg teraanga am ko ñëw bokk ko ak say mbokk waaye doo ñëw di sonnal say mbokk. teraanga boobu nga am au niveau national tey ma jiite yàlla def ma jiite un mouvement national ñu may dégg Richard Toll di ma dégg Saint-Louis di ma dégg Ziguinchor di ma dégg Cap Skirring di ma dégg Moulomp di ma dégg Katinon di ma dégg Balingor di ma dégg Yëmbal un peu partout te duñ ma dégg sama dëkk loolu erreur gënu ko màgg donc naka lay def ba wàcc sama dëkk ne leen ah seen doom ji ngeen xamante ne yóbboon ngeen ko mu jàngi kat euh, ku tukki indaale. xam-xam wala alal wala nit ak noppam dañ koy wax léeg-léeg indi nañ xam-xam yàlla def na indaan nañ ndomba tànk dañ ko bëgg bokk génn waaye dañ koy bokk na ci teraanga duñu xas kenn duñu wax ne maire bu fi nekkoon def na lii deful lii deful lii euh, erreur bi mu def na duñ xaar kenn parce que kat boo nga dafa nga xam sa bopp yàlla def nga génn taxawal mouvement nit ñi ñëw uy si la ba wootee stade Iba boo wootee place de l'Obélisque mu fees dell loolu waroo dellu say mbokk di di di xaste ak a xeex da ngay yokk dem kay dolli leen parce que nag politique tey ji koy sondeel comme ni ñu koy waxee. Mm. nit àll bi lakk sa bopp. Mm. jëriñ da ngay jëriñ diw baax na mm. ñu ko wax mbokk ya alors ce qui fait aujourd'hui bëgg nañ ñun suñu ci teraanga on a le droit nous sommes de Koungheul dem ne waa Koungheul man de programme bi moom laa tënk pour Koungheul at sang at bu njëkk lii laay def bu ngeen man euh, élire maire Koungheul 2019 lii lay def année bu ci topp lii laay def cinq ans yi lii laay def suivant un programme très clair doo fa nekk di di xaxar kii parce que koo fa ñun ñëpp benn lañ Koungheul benn bopp la même boo xaritoo kenn ku du ut mairie bi seen papa benn la woon donc benn googu nag wala seen mag ñoo doon ànd wala yow daal doon ànd ak sa ay frère donc loolu nekk na lu am solo loo xamante ne ñun Koungheul noonu lañu ñu fay taxawee noonu la ñu fa fas yéene taxawee xam ne xam ràññee nañ ci ci ci géewu diine bi diine yi lépp luñ am ci gàmmo yi am foofu dañ ciy jàpp récemment ñaari rakk euh, Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla yokk leeram man lañ ko pare noonu 5 septembre passé ci sport resa am na coupe boo xamante ne daaw man lañ ko paree na woon ñu ñëw def si suñuy millions yu bëree bëri yaa ngi dégg yeneen gàmmo yuy am ci biir bu ñu mënee déplacer toute l' équipe n' de l' état en tout cas terme de matériel dañ koy def ñëw jàppale jàppale leen jàppale daaray jàppale jàkka yi donc euh, ak yeneen ndimbal yoo xamante ne kenn du ko wax ca kaw parce que euh, ay ndimbalante suñ biir donc xam nañ ne daal. suñu euh, dénkaane gi yàlla dénk ñu ko ci suñu statut bi parce que yàlla nag mayewul dafay dénkaane ab diir dénkaane bi ñu ngi koy jéem a bokk ak suñu mbokk mbokk yu jaret mbokk yu dëkkandoor mbokkum réew mi c'est extrêmement important tamit teg ko nag ci yar ak teggin nekkul ne <laughs> waa ministre monsieur le ministre wàcc sa 44 AD yëkkati mbagg pousse non ña ñu doon xamantel fañ daan toog dinaan ataaye dañuy wàcc duñ leen romb wàcc nuyu ak teggin a rek beaucoup loolu nag nekkul nag fa nekkul kii mais quand même avec beaucoup de respect wane ne lii ma doon ko tat yéen ñii mën ngeen takk ndomba tànk bi euh, yàlla mooy tudd na ko tuddee ci anamam ya donc noonu lañ fas yéene taxawee Koungheul te nag wax dëgg yàlla du mbirum caaxaan fas yéene wuñ ci ànd ak kuy caaxaan fas yéene wuñ ñun caaxaan ci lu ñuy def parce que buy ndomb tànk au delà de la mairie takk nañ ko donc donc takk nekk maire. du lu ñuy euh, nekk lu extraordinaire ci ñun lu ñu bëgg la nag ci Koungheul pour que Koungheul difficulté yi mu nekk difficulté d'assainissement yi mu nekk yu muy traversé défini difficulté affaire ndox mi mi mu nekk difficulté yi mu nekk ci wàllum ci wàllum éducation ci wàllum santé ñun ñu dugal ci suñu loxo def ci suñu kéem kattan wa nit nag day peser waxam <laughs> faj faj faj lépp yàlla ko mën def suñ kéem kattan ba ñu ràññee ne ah euh, kii kat suñu doom ji de ba mu ayee de aye ba neex na lool. di leen fàttali rek ñu ngi toog ak monsieur le ministre euh, Abdoul Mboup euh, question yi nag jeexagul damay ñëw ak yow. parrainage laa bëgg dugg ak yow parrainage ñu gis ne jafe-jafe gi bëri na golo bay baabu dundee la mbir mi da ngeen ko àgg moom partage wu leen ko loolu am na wala amut. non loolu amul parce que vous savez président Macky Sall c'est un grand démocrate un booy dénk réew dénk ko ku am xam-xam booy dénk réew dénk ko ku bëgg réew ma ku am yar c'est extrêmement important le Sénégal c'est un pays de valeur ku am yar ku am diine lu tax mu wax loolu Sénégal dafa dafa dafa dafa euh, tombé mooy waral rafet président Macky Sall dafa nekk ingénieur en géologue ñël jël réew mi ñu ne petrole feeñ na te pétrole nag xam nañ ne euh, waxuma Sénégal mais bitim réew dañ ko soxla les questions géostratégiques mondiales di nga gis multinational bu jógee fële ngemb kenn jox ko ay millions yu bëri mu ngi commencé feeñ mu ngi commencé feeñ lu ñuy wax nii ngemb ba koy président Macky Sall wax ñu naan non dafa bëgg jaar nga leen loo loi bi jox ko ay millions yu bëri ne ko demal ba suba gañee nga jox ma pétrole réew mi di nga gis ñaata businessman businessman ñoo ñëw taxaw pour business réew mi mais fii nag réew mii nag réewu Sénégal du réewu caa caaxaan ah réew moo xamante ne euh, am na ku ne euh, te ñu gëm ko lool leeru yonent solu na ma may max diw limal max diw xadimu rasool nekk fi Sida la Malisi ci miim ya borom faydu bi Sida Barham Niass ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Oumar Foutiyou Tall njabootam waa Ndiassane extra extra réew moo xamante ne koo si jël. ci xale nu mu ndaw ndaw ndaw ci njàngam kàngam la ci xam-xam réew moom di réewu caaxaan moo tax président mu ne damay delloo damay approfondir la démocratie delloo askan bi parrainage du lenn lu dut delloo ci askan bi ne leen ndax nangu ngeen ma nekk candidat waxuñ ne demal ci Macky Sall wax ko mu nekk ndax man candidat déedéet demal ci askan bi c'est libre yaay dem ne ah yow Assane Ndiaye man de damaa ñëwoon pour ñaan loo laaj la ndax nangu nga ma nekk candidat nga bindal ma fi sa carte d'identité bindal ma fi sa numéro carte électeur signeel ma fii mu signé am na ñoo dañ cee boole tricherie jël ay base de données. mais dégg naa foofu yéen da ngeen dëgg seen tànk si ñu nga xamante ay euh, dañ leen ragal yéen APR tey am na ñoo xamante ni tey dañu leen bàyyi xel exemple Ousmane Sonko seen problème à 100 pour cent si Ousmane Sonko pourquoi pas ngeen bàyyi xel pourquoi Euh, mu bàyyi xel trop sax. non xam nga xam nga sawaay politique doo sous-estimer dara Issa Sall bàyyi nañ ko xel Bougane Gueye Dany bàyyi nañ ko xel amul kuñ bàyyiwul xel même le chef de quartier de Nord Foire bàyyi nañ ko xel amul nit la xam xam naa ban aadama nit ki bu ñëwee da nga koy bàyyi xel mais nekkul ne président Macky Sall jëlal best pays yu nekk ci. saw jant Afrique kan moo ci def lu projet bu toll ni Ila Touba. Ila Touba dafa nekk la du idéem du idéem du idéem Macky Sall. waaw xam nga xam nga loolu dafa yomb dafa yomb yow nga aye sa ñaari fan soxna ci kër gi togg soom bi kee aye def ginaar yu saf-saf nga ne du idéem sama idée la lu tax ba nga aye togg toggoo ginaar c'est ça problème c'est-à-dire ñun jëf wax waxuñ ko. la la maam Cheikh Rafal waxoon nañ bàyyi ba suñ borom di fay wax bàyyi jëf jëf a gën a foor wax am déet kon nañ dem ca jëf ca moo ko fi jëf moom lañ koy waxal jaa jëf am déet xoolal ni mu man li ma gën a neex ci nguuru président Macky Sall ni mu defaraate institution ak administration Sénégal je suis euh, xam naa nit ku daan toog am numéro matricule de solde toog de France di fayee ko alalu réew mi xam na kër goo xamante ne dañ koy jël maison conventionnée dëkk ci loué ko état bi. yor li téléphone yi bàyyi ma ñëw. am na foo xam ne du ma fa nangu ak yow parce que mënu ma gëm ne ngay wax ne monsieur le président dafa liggéey liggéey bu mucc ayib tey euh, secteur boo dem yuuxu yaa ngi bëri éducation y' a problème agriculture y' problème tey nga xamante ni moo gën a nekk lu fondamental Sénégal tey muy agriculture soo demee tey si Saloum. si foo dem ci baykat yi ñu ngi noot seen gerte comme président lu muy liggéey fan la feeñ si ngeen la da ko pàcc wala da ngeen ko partagé. mon cher xam nga xam nga xam nga Sénégal daf di réew boo xamante ne la liberté d'opinion la démocratie est très avancée boo demee yenn réew yi euh, comme étranger léeg-léeg ñu ñëw fu Sénégal du ñu wax ne ñoom sax dañuy joppi dañuy jaxle euh, euh, mbay mi mbay mi lu mu def ci mbayum ceeb bi président Macky Sall bañ jege autosuffisance ci wàllu pomme de terre autosuffisance ci wàllu soble autosuffisance ci wàllum ceeb yaa ngi dégg lim indi ci matériel ñu gis ko ñëpp di ko gis jël ay tracteur dugal ko biir Saalum jël ay matériel mbay joxe ko matériel mbay bu jar quatre-vingt-dix millions mu subventionné ko soixante million nga xam soixante pour cent nga xam da ñëw quarante pour cent jëlal jëlal jëlal napp gi yow da ngay am problème mu gaal sa gaal da ngay jow dem tuuti doo sori parce que c'est c'est c'est mécanique mu ne moteur buy jar un million quatre cent et quelque def teg naa ci un million moteur buy jar un million trente mille teg naa ci un million trente sept mille francs ngay indi am sa moteur loolu la demal jowaalo jowaal di ko fa fekk demal ndar mool yaa ngi mool yaa ngay sant demal fi sumbe jun gii mool yaa ngay sant amul secteur booy jël te président def fa loo xamante ne lu rëy la naam réew nag buy dox réew buy dox ressources humaines yi di gën a am solo seen xel yi di gën a am euh, di gën a leer du day ànd ak coow parce que nit mu bindoo noonu nit ku dem barzaq yóbbaale projet am déet donc nit koo toog rek boo ko indilee li euh, bu ne électricité laa bëgg nga indi ko électricité mu ne non Euh, na na na gën a yokk c'est ça un état. un état kenn amul naataam ne monsieur le président Macky Sall liggéey na bu baax ci réewam. mais le problème le problème en nekk. tegal non daaw bàyyi ma ñëw le problème en nekk mooy euh, yéen ñu nga xamante ni yéen a nekk ci gannaaw Macky Sall yéen a yéen a yéen a fësalul mbir mi da ngeen jël mbir mi su Macky Sall par exemple su génne benn bout de nga xam ne ñaari ku ne mën na ci am. danga ko jël téye sa bopp doo ko jox keneen mbir mi da nga fa nekk loo xamante ni da ngeen ko dugal yemale seen biir de trop pourquoi ngeen def loolu à partir ci parti bi nga xamante ni mooy APR. Euh, euh, président Macky Sall. waa ñu wële daal da ngeen da ngeen da ngeen yemale ko seen biir de trop. non yemale wuñ suñu biir. au contraire kooku du président Macky Sall président du président buy jël alalu réew mi di ko jox waa partem rek non président Macky Sall ci bonne répartition. en tout cas ji nga fii bureau bi nga ma gis yi jafe-jafe yu bëri bëri réglé nañ ko ci bureau bi lu ñu bind fii ci note technique mu dem ci président mu am solution kenn xamul nu mu toll yàlla laay waxal julli lañ wa maa xalatul jinn wa insi ilaah bu doon suñ borom ko wax te yàgg yàgg nag nguur gi dañ koy bàyyi dugg ji ci nguuru yàlla lu ñu bind fii maanaam du ñu tee kayit ku ñu wax dañ naan la. indil dimbale ñu ñu def suñu liggéey ba ëllëg suñu borom bu ñu laajee conseil bi ma la defoon ci président loo ko wax ñu mën ne de waxoon nañ lii waxoon nañ lii waxoon nañ lii donc loolu def nañ ko ci anam yi bare bare bare bare ñàkk paajo bi da ko confirme mooy yow ku laal Abdou euh, Abdoul Mboub ku ko laal Macky Sall ne bu laal Abdou sama Abdou la mbir mi da kaa yemale te trop te dañ may dégg si nit ñi wax ne non ministre Abdoul Mboub bu kenn laal Macky Sall da kaa bëgg da ko def si yow def ko ci keneen ak keneen ak keneen mbir mi moo tax ñu da ngeen ko restreint ba mu ëpp. Macky Sall xam nga nan lay bëggee nit. liggéeykat mu bëgg la booy caaxaankat du la bëgg ku nga taxaw di xas nit ñi bu la Macky Sall déggee jéppi la président Macky Sall xasloowu la saagoloo daf la liggéeyloo boo koy booy liggéeykat rek mu ngay xaritam boo booy tappalekat doo xaritam ak loo ko jege jege jege nag président la boo xamante ne. Sénégal ràññee nañ ko amul kilifa diine bu dul xaritu président Macky Sall te doone ma kilifa diine yi euh, safaan. dëgg la président président du xas kenn mais président du xas kenn si comportement vrai mais dafa ragal ko ko xas di tax ma wax loolu président tey soo nekkoon tey parti opposant ak moom di ko wax lu nekk mën nañ see def si yow un milliard ngir nga ñëw si APR mu nga bañ koo xasati koo xamante ne ànd na moom douze ans. du ko jox un franc mais il préfère que mu jox ko xamante ni mu ngi koy xas ci terrain bi pour mu xàcc ko bu mu ko xasati. Euh, loolu loolu loolu un milliard jox ko kenn pour mu ñëw système boobu gisuma man li ma wax ne président xarit <laughs> yaa ngi ree mais ma sa question bi. jox milliard koy xas mu ñëw déedéet la stratégie politique c'est quoi. politique à chaque fois da ngay xool naka ngay doolelee sa parti tey Modou Diagne Fada bu jógee fële ñëw ne moom def gis na xool na. am na xam-xam nekkoon na ci nguur xam na ne président Macky Sall mii kat mooy solution Sénégal bu ñëwee dañ koy wax dugg si dugg si yegg si sa place nga nee toogal. exemple de Moussa Sy lu mu waxoon Macky fii amut te tey xàcc na ko jox ko bu weex tal andi ko ci APR. wax ci ñàkk xam am na nga dem ba ràññee dugg gis nañ ko ci fu ne. en tout cas nit ki dem ba ràññee xam ne dëgg fii la nekk mu dem ci dëgg ja kooku diine lislaam sa may na ko nga nekk ci tooñ. ràññoo nga dem ba xam ne yow mii kat yaa ngi tooñ suñu borom nga ne yàlla astaghfirullah wa tuubu ilayhi suñu borom jéggal la ñooñu dañu dem ba xam ne la solution du Sénégal avec c'est avec le président Macky Sall ba mu jógee ñëwee 2012 ba 2014 lañ lan nañ wax yoonu yokkute yoonu yokkute mais ba mu commencé mettre en œuvre le plan Sénégal émergent boole kook lettre politique sectorielle boole ko xalaatu ONG yi boole ko yoonu yokkute ñu gis ay résultat yuy taxaw ci ci ci cadre de vie bi ndakaaru pont Sénégal 92 ex pont Sénégal 92 ñun ba ñuy xale ñu daan jóge Parcelles di jàng ji lycée Lamine Gueye bu ñu ñëwee ba pont Sénégal dañuy wàcc wër pont bi dox parce que di fa def trois heures de temps balaa ngay tardé da ngay ñëw ba foofu dox jéggi dem Padois ñu yàgg ndakaaru xam nañ li may wax de. mais am bi tey la gën a ah, ay. Ah, foofu rapidement nga romb dem sa xoolal président li mu liggéey ci pont bu jógee si sas l'autoroute côtière pour nga loolu mënoo ko gis fii ci Afrique sowu jant pont wu ñaata ñaata ñaata ñaata longueur bi ça fait plaisir nga romb fa nga xool da ngay xam ne président Macky Sall mi mais jëlal euh, affaire inondation Dakar bu tawaan dangay nekk sa kër Sicap Liberté sa yaram di daw ci waa wàq naan nimsaat da nekk sa kër Mermoz sa sa yërmande di daw ci waa Dalifort président jël ay milliards def ko ci biir suuf si ba tey fa daan taa ñu naan terre bi moo fay romb train express régional lu ñuy gis Maroc di ko gis Madrid euh, moodu moodu ya nekk Paris sax wala nekk jën ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay ay émission di wax ne train bii di ñëw matuwaay yi nii la parce que nii xam nañ ko nii lay xamee ko donc nga xam ne président bii ñu am président la boo xamante ne dafay ibbi Sénégal ci modernité waxuma la Sénégal nitu Sénégal euh, sénégalais citoyen sénégalais responsable sénégalais mais tubaab bi ñoo ko gën a bëgg ndax xam-xamam bu leer Afrique pays africain yi mas nga gis président buy def congrès d'investir président ni moom ñëw toog le président Ouattara le président Gambien Adama Barrow le président George Weah ñi ñëw toog mais tellement que arena bi dafa dafa rafet avec plaisir lañ ko doon contempler xam ne président Macky Sall mi defaat euh, bañ bañ fi jaaree ab at fii jam ñaajo soppi na xarxanu jam ñaajo ñun tourisme dañ daan toog ñu naan exposition yi ñuy am ci Europe ca Paris Topresa yi ñuy am ci Futur de Madrid yi ñuy am ci Rofiera ca ca Milan mais kañ la am exposi centre d' exposition boo xamante ne CICES mënu ko CICES mënu ko président defar Dakar Expo fële donc yow mi nga xamante ne daan nga tukki di rêver yenn yi compagnie aérienne. mais est que Sénégal yi le président defar ñoom xam nañ ko bu baax est ce que ngi sensibiliser ak message mu ngi jàll. xam nañ ko. mais comment. sénégalais yi xam nañ ko te bu ñu demee 24 février nga xam ne sénégalais xam nañ ko. yow tu crois que président day ñëwaat au deuxième tour. président day ñëw au premier tour. pour avoir un second mandat au premier tour avoir un second mandat vous savez demal Ribo Escale la fa def demal demal demal demal demal euh, Fass bu tawaan waa Fass Cekkeen pour ñu jàll Medina Tayru ñëw ñëw Koungheul parce que dex bi door na fay pont def na fay pont ñaata village la électrifié ñaata forage la def ci mi réew donc da ràññee ne président dëgg dëgg dëgg ku juddoo ci région yi la vrai made in Sénégal jàngee Sénégal jàngee ci université yi xam bu baax mais mais au-delà de son excellence le président Macky Sall jëlal jëlal jëlal sa première dame Marème Faye Sall modestie yaa ngi dégg woyof woyof bëri na ñoo xam ne xam lu ñu de président Marème Sall moo tax ma bëgg ko ndax woyofam ndax lan aussi station taxi sax dugal nañ fay billet màkk marché yi dugal nañ fa ay billet màkk da ngay dugg ci koñ da ngay dégg ñu ne man de ci billet màkk wu président Macky Sall yi laa demee demal Cambérène résidence ba xalif ba demal euh, Medina Baye Medina Baye li muy recevoir ci aw sax li muy recevoir ci fidèles yu jógee Nigéria mu defal leen kër gan ah demal demal demal demal Tivaouane donc réew mu réew booy jël. liggéeyu Sénégal liggéeyu ministre commencé dire son président Macky Sall selon vous bëri na selon vous laa wax mais askan bi waxuñu ko quoi loolu xam naa ne jaaxal na trop askan bi. waaw nii rek lay demee. <laughs> waaw askan buy jot bourse familiale wax na ko. Ah. askan bu daan coupé ci courant ba. plan fayal. waxuñu ko askan ba doon nekk ca mbënn ma waxuñu ko. loolu nga gis sama technicien mu ngi may réaliser ne waxtu yi mu ñu jëm si jeex waaye di nga koy jox suñu dernier question rek moom mu jox ñu bilan bu nga xam ne xam naa moom émission bi yëpp bilan la bilan rek lay joxe bilan yoo xamante ni Sénégal yëpp nga am problème pour xam fu ñu ko teg parce que su nekkee am na sax ñun des nañu leer amaa nag d'ici 2019 dana leer quoi incha allah rabbi ku nekk ñu doon recevoir rek xamante ni wax dëgg yàlla spécialiste li nga xamante si wàllum politique Sénégal nekk koo xamante ni ingénieur la aussi nekk le ministre conseiller à kon nag moom lañu daloon tey seen émission li ci dëkk bi yaakaar naa li ci dëkk bi moom décortiqué na ko wax na ko ba mu leer nañ euh, monsieur le ministre bilan nga xamante ni tey son excellence def na ko xam naa si ngay gën a content pour def ko mais na nekk lu positif. bu kéemaane bilan bu bu bu kéemaane boo xamante ne euh, nit mënu ko euh, xam nga président Macky Sall la mu rawee presse sénégalaise d'abord la presse qui maîtrise l'information maîtrise tout code presse cote bi bi leen tënkoon. ñaata président ñoo fi ñëw romb tànkam lu ko mu votel leen ko tegal leen ko xam nga de presse yooyu kañ kañ li nga dégg ñu ne journaliste bi tëj nañ ko loolu rek am ngeen seen aafiya. def nañ bilan def def nañ kaso yu yëpp mais loolu dama si nangul moom damay d'accord ah, damay d'accord damay <laughs> d'accord <laughs> damay d'accord parce que seet nañ kaso yi boobu kaso yu jeex amul benn homme de presse boo xamante ni wala femme de presse boo xamante ni tey mu ci kaso yi. waaw di nga d'accord ci leneen. damay d'accord ci loolu xam nga li ma gën a marqué ci président Macky Sall l'audit de la fonction publique président fonctionnaire la gën a ragal li doon dugg ci fonction publique mu jël ci ay milliards xëpp ko ci bourse familiale trois cent milliards xëpp ko ci bourse familiale man man kaw kaw la dama fonk sa ba ma dëkk ak ña ma dëkkal xam cent mille francs lan la tekki ca prime cekkeen dama ko xam dama xam dix mille francs boo ko téyee ñaata fan la la mën a téyel donc bokkuma ak ñuy xalaat juróomi junne fii ci ndakaaru juróomi junne ndakaaru moom benn xëy la mais bokkul ak na mel ca mu lomp donc président boo jëlee ci wàllum université yi nu ngi ko diversifier yokk yokk capacité d'accueil des universités jël yokk université yi ci boppam université Sine Saloum renforcer leen Euh, xoolal ñun temps yi ñuy ñu ñuy jàng bu ñu newoon tikkee ndékki fukki dërëm loolu loolu ndimbal te ñun li may wax ni ay années 1990 la ba 2018 18 ans après ñu wàcc ñu wàññiwaat ko waxuñu yokk xoolal kii boobu yërmande boobu parce que moom dafa jaar université Dakar xam ne étudiants yi kat fukki fukk ñaar fukki dërëm ndékki ak fanweer ak ñett ticket métti na ci ñoom. mu ne ñaar fukk añ fukk ndekki yokk bourse bi donc ça veut dire añ ba wàññeeku na xaalis ba yokk na. amee ah ah, loolu am. Hmm. demal nga université nga laaj ñun li ñuy wax du du du du ñun ñun dañoo inspiré wu ci car ci ci président Macky ba xam ay démarches am bu ma la waxee ne mille quatre cent parcelle man mii mu surga président Macky bi joxe na ko ca Gorom ak Lac ay kayitu kër yu yu yu yu disponible yoo xamante ne le 31 janvier dinaa ko distribuer fii ci place de oo nit par artisan tailleur femme de développement jox ko ay kayitu kër ñu am seen kër ca gorom seen parcelle parce que lu ñu def dañu créer coopérative d'habitat da nga daan ni coopérative d'habitat gendarme yi coopérative d'habitat policier yi mais coopérative d'habitat artisan yi commerçant yi coopérative d'habitat femme de développement yi daana ko dégg ñun ñu créer coopérative d'habitat boo ne pro borom suuf si waa ji ko waa ji ko soxla mais loolu yéen gën a bénéficié wu. ji nga ji nga euh, ñun jullit lañ. Hmm. ci lañ bëgg dundu ci lañ bëgg uyu suñu borom. moo tax duñ wax. suñu waxtaan suñu waxtaan du jeex parce que kii moom <laughs> macha allah lu muy wax teg na ko ci axe lu gars yi di wax. teg na fu leer waaw. waaw teg na ko si <laughs> macha allah kon nag euh, dañ koy jaajëf bu baax monsieur le ministre tey am nañ bu baax mbégte tey euh, nga recevoir ñu fii tey euh, ca bureau. wax dëgg yàlla bilaa. waaw bilaa Touba loolu yëpp idée idée Abdoulaye Wade la danañ ko bàyyi mu jeex rek loolu idée ah. idée Abdoulaye Wade la quoi <laughs> waaw loolu dañ koy bàyyi rek mu jeex xam naa ne suñu waxtu mu ngi xel ah bon. bateau bateau usines yi ñëw di napp géej gi tey boo demee Soumbédioune coof yaa ngi fay koof coof yaa ngi fay jeex gën jën gën na neexati ndax lan moteur gaal yaa ngi tax xam te ko wax na dëgg moteur gaali yi <laughs> yi ñu dana mais aussi nu ñu nu ñu aaree euh, géej gi jëlal de tourisme président dafa ñëw def crédit hôtelier ni yow yow hôtel hôtelier boo nga doon am problème kaay ma jox la lebal la lu mat cent million nga renforcer sa hôtel def zone économique spéciale Casamance. yaa ngi dégg monsieur le dafa bëri trop. dafa bari trop ah, dafa bëri si lu ngeen wax dafa bëri trop ba d' accord liggéey bi da ngeen koy créer àll comme Laxar mais d' accord léegi dama lay bàyyi dama lay bàyyi nga nga nga tàggatoo ak askan bi mu nekk lu amam solo parce que waxtu wi mu ngi jëm si jeex looy tàggatoo. tàggatoo bi tàggatoo jàmm la. di lancer un appel aux Sénégalais xam ne réew mi nag ñoo ko moom. réewu Sénégal réewu réewu Cheikh Ahmadou Bamba réewu Sidi réew mi nga xamante ne président Macky Sall mosu ko yor ci violence mosu ko yor ci ci ñàkk kersa ci teggin euh, ñu ngi jëm fii ak un mois ci élection ci campagne électorale ñu xam ne nag suñu réew mi bu ñu kenn xeexloo bu ñu kenn taaloppo nañ parce que ñañ ko defaloon ñañ ko defal defaloon bañ génn àdduna tey waxatuñ leen donc la jeune sénégalaise nañ xam seen bopp baax a baax nañ jëm gëstu. kuy président Macky Sall ci réalisation bi nañ jaamu yàlla réew mi suñ borom moo ñu ko jox jox joxin moo ñu fi dëkkal ñu dëkk fi nekk fi donc buñ kenn jógee fee di ñu wax wax joo xam ne foog naa dafa mel ni yaakaar naa non des chiffres exacts de des données claire yoo xamante ne bu la kenn yëkkati ngay dem di taal sa réew réew mi nga xam ne yàlla moo la boole moom dëkk fi jaamu yàlla donc ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla Sénégal am élection apaisée élection wu jàmm jàmm ji am fi opposition comme pouvoir ñëpp am jàmm président Macky Sall am second mandat mu continuer mébétam yi muy def liggéeyam yu rafet yi muy def ci terre bi terrain extra dem ba Tambacounda imaginez-vous bien quinze lii ñëpp génn nga xamante ne fii ak Tamba une heure de nga koy def mais aux États-Unis da ngay dëkk New York di liggéey New Jersey yaa ngi dégg te looy jël euh, métro bi nga jël mais c'est c'est des c'est des près ay cinq cent 500 donc ñu ngi ñaan opposition comme pouvoir ñu jàmm pouvoir bu waxuma ko parce que président ak Sall xam nañ ko mais opposition bi nañ def jàmm kañ kale ndax lan dafa jël alal réew mi xam na kale nañ ko rek mu mu toog ëllëg bu téye loxoom ba du jël alal réew mi ah, loolu du xas <laughs> loolu nekk lu am solo donc ah, waaw waaw donc loolu nekk lu am solo loo xamante ne mi réew allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim voilà merci beaucoup ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel la télé sunu TV euh, am nañ mbégte ak contentement bu baax doon recevoir tey jii le ministre Abdou Mboup mu nekk ki nga xamante ni moo nekk ministre conseiller du président de la République du Sénégal nekk euh, fondateur du mouvement CAR Natangué wax dëgg yàlla ñu ngi koy béggee bu baax euh, bokk tamit ci programme boo xamante ni un chauffeur un véhicule président jox ko mu koy doxal ci ni mu waree macha allah tey sunu TV émission bu nga xamante ni moo nekk li ci dëkk bi tey moo ko recevoir oon tey xamante mu nekk bureau am mbokk yi aimé leen partagé leen commenté leen incha allah rabbi lépp loo xamante mu ngi ci dëkk bi suñu TV ak émission bu mag bi di leen ko andil kon ñu leen di jox beneen numéro beneen heure beneen waxtu fii la zone de la euh, sunu TV jërë ngeen jëf.